match bu troisième place bi nga xamante ne war na dox ci diggante Afrique du Sud ak équipe boobee di euh, RD Congo mi nga xamante ne pays hôte bi di Côte d'Ivoire moom moo ko dóor mu nekk nag match bu méttee métti match bi war a am niki ni suba ci samedi bi ci bu vingt h jotee nekk match de la troisième place ci noonu na Pape Mante Mboup jot na dikkaat ci parcours ñaari équipe yi nga xamante ne def nañ euh, phase de groupe ak euh, ay huitième de finale quart de finale yu am solo ñu teewlu ko. muy Afrique du Sud di RD Congo ñaari équipe yi naam bokk ñoon ci favori yi ci bile Coupe d'Afrique des Nations <laughs> waaye ñu wane performance bu am solo tax kon ñu éliminer leen ci demi-finale ga Afrique du Sud naroon créer exploit ci digganteem ak ñi di waa Nigéria ci demi-finale ga gannaaw ñu defee benn ak benn ci temps réglementaire ga teg dóor yo la ñu mujjee ñàkk ñeent ci ñaar Bafana Bafana yu Afrique du Sud am performance yu am solo ci bile Coupe d'Afrique ñoo éliminer Maroc nekkoon parcours bu am solo tamit la def di fàttali ni Afrique du Sud gëj na egg fii ci compétition bi nekk atum 2000 Afrique du Sud moomule benn yoon rek la mësu sax jël lii di Coupe d'Afrique des Nations seen bébét nag mooy jël sax lii di médaille de bronze bi ci kaw ñi di waa RD Congo RD Congo moom am malheureux croisé Côte d'Ivoire mi dalal boobule compétition moonte ni RD Congo ci demi-finale ga nag amoon na taxawaay gu am solo waaye yeewu Côte d'Ivoire ci bile compétition moo tax ñoom ñu mujj nag ci les demi-finales RD Congo moomule jot naa éliminé équipe yu ci mel ni Égypte ak Guinée. RD Congo tamit 2015 la gëj a egsi ci demi-finale Coupe d'Afrique des Nations République démocratique bu Congo jot naa jël nag ñaari yoon bi la Coupe d'Afrique des Nations ci atum 1968 ak jaajëf Pape Manta Mboup ci parcours boobee nga xamante ne ñi dikkaat nga si ci ak Afrique du Sud ak Nigéria euh, ak euh, RD Congo plutôt Afrique du Sud ci fàttali moom moomee Nigéria moo ko dooroon ci euh, demi-finale bu Coupe d'Afrique des Nations en conférence de veille de match le sélectionneur de la RD Congo Sébastien Desabre nag wane wax na ne il est très fier du parcours de ses joueurs bi ngeen seetloo Congo nag dafa pertoon ñaari match ci phase du groupe bi ñoom ne ñooy jàppoon ka ci kan bi waaye nag ci noonee nag def nañ ab euh, parcours ay performance yu ama am solo moo taxit nag bëgguñoo ñibbi te amuñ ab médaille bu ñu sukkandikoo ci keneen di tàggat. C'est un match international. Euh, où on va défendre les couleurs du, du pays et, euh, on va essayer encore euh, de les défendre haut et, on sait qu'au football c'est en gagnant des matchs donc on va dire, quel que soit le, le match qu'on a à jouer dans une, dans une compétition ou même en match euh, amical, euh, on se doit d'aller chercher le, résultat avec euh, nos forces et, et, nos faiblesses du moment euh, et, puis euh, d'essayer de, de s'améliorer. Après, je le rejoins quand il dit que, pour nous, euh, on le sait, on est parti sur

Euh, et c'est en gagnant le match, et qui plus est un match qui peut nous apporter une, euh, une médaille, euh, ça dire qu'on a, on a bien su tirer tout parti de notre, de notre effectif et, et il faudra féliciter les, les, joueurs qui sont les acteurs premiers de, de cette réussite. à l'instant le sélectionneur de la RD Congo leur joueur euh, qui s'appelle Dylan moom it ci même ligne bi la daal di wax nee naa moom nag am nañu temps ngir jàngat Afrique du Sud mooy les Bafana Bafana ñoom ñi nga xamante ne lu yàggul dara defoon nañ benn match amical ci noonu nag joueur congolais yi ñoom nee nañ déception bi nga xamante ne am nañ ko ci diggante Côte d'Ivoire bëgguñ ko dundaat li ni mel euh, ci match bi nga xamante ne war na dox niki ni suba ci noonu ñu daal di teewlu joueur boobee. Euh, Après, on aurait tous voulu aller au bout, comme le, comme l'a dit. Euh, on, sait, très bien que cette troisième place, elle est importante. Euh, avoir cette médaille, ça serait, une récompense euh, pour, le chemin qu'on a parcouru dans, dans cette canne. Et, c'est pour ça qu'on est tous mobilisés pour, donner le meilleur de nous-mêmes et bien terminer ce qu'on a pu entreprendre durant toute la compétition. lu mooy match troisième place ñeel 34e édition bu Coupe d'Afrique de nation ñu wax ci équipe yi nga xamante ne def nañ parcours bu am am solo ci Coupe d'Afrique des nation bi équipe bu ci mel ni Mauritanie mi nga xamante ne bii moo nekkoon euh, bu njëkk bu leet muy qualifié ci huitième de finale ci noonu sax gis ngeen ne ba joueurs ñibbe ak sélectionneurs yi bañ bañ bañ ñibbee ci noonu dañ leen a accueillir ndax euh, parcours bi nga xamante ne def nañ ko fédération sax dafa daal di jël ab dogal ne dafay euh, prolonger contrat bu Amir Abdou Koké di mooy tàggat Mauritanie ci ñoo ne nag benn taskatu xibaar bu yooju turu Amadou Sy moom nag dikkaat na ci ni nga xamante ne noonu la Mauritanie doxalee waaye itam lan lañ mën a yokk bu fekkee rek bëgg nañoo préparer campagne bi nga xamante ne war na am atum ca dëkk boobee di Maroc Amadou Sy un journaliste mauritanien. Le parcours de la Mauritanie a été assez intéressant aussi bien dans le jeu On a vu une équipe présente tactiquement, une équipe aussi présente physiquement. Il y a eu du répondant euh, au premier match euh, contre le Burkina où on perd quand même sur e minute, en fin match. Euh, le match suivant contre l'Angola était beaucoup plus ouvert face à une équipe qui est très joueuse, très explosive. Euh, on perd 3-2, surtout avec euh, des, à la suite de, de, de, de fautes individuelles individuelle. Et donc c'était c'était évitable. Et le troisième match contre l'Algérie, euh, qui était quand même favori du groupe, on le gagne. Euh, en étant imposant dans le jeu, en étant présent, en étant concentré euh, et surtout en étant efficace euh, dans, dans le but. merci beaucoup à Amadou Sy qui est journaliste sportif mauritanien ñu daal di wax ci choc bi nga xamante ne war na am ci dimanche gi diggante Nigéria ak Côte d'Ivoire loole ñeel finale bu Coupe d'Afrique des Nations mu nar a nekk nag match bu métti métti bu ngeen fàttalikoo ñaari équipe yooyee ñoom ñoo bokkoon poule Nigéria nag daal di dooroon euh, Côte d'Ivoire benn bal ci dara ci phase de groupe bi ndaxte loolee mën naa répété waat ndax finale beneen match la ñuy am bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xamante ne dafay tàggat ay joueurs di nekk ca club boobee di di formé ca Racing Club bu Dakar moom moomee nag jot na jàngat final bi nga xamante ne war na dox ci diggante Nigéria et Côte d'Ivoire. war a wax rek ci li jëm ci final Coupe d'Afrique bi mu war a am ci diggante équipe bi di nigeria ak euh, Côte d'Ivoire euh, ñu gis ne ñaari équipe yi bokkoon nañu poule donc euh, jotoon nañu daje équipe bu Nigéria bi gagné ko donc ci match de poule yi gagné woon ko nag tactiquement physiquement ba pare amoon nag métier maîtriser match bi trop loolu nag xaw a indil jafe-jafe sax bi ci ban am ba tax na moom génnee gis nañ ko nekkoon nag euh, équipe boo xam ne euh, pratiquement euh, dafa ressuscité parce que pertoon na confiance ñëpp jàppoon nañ ne dootul génn ci premier tour bi mais nga xamante ne war na am ci diggante Nigéria ak euh, Côte d'Ivoire ki koy arbitré nag ab nationalité mauritanienne la kooku nag moom mooy arbitré final bu Coupe d'Afrique des Nations bi moom moomee jotoon na sax arbitré euh, bay kan bi tàmbali ci phase de groupe bi mooy bokkoon ci marché bi nga xamante ne doon na dox ci diggante Égypte et Mozambique waaye itam ci diggante match bi nga xamante ne moo nekkoon Angola ak euh, Namibie kooku nag di nekkoon. nekkoon itam ca CAN 2021 euh, moomee nag ndaw la ndax 32 ans képp la daal di am ndax jotoon na aussi arbitré ci Coupe d'Afrique des Nations ba amoon ca Cameroun atum 2021 kooku di wuyu ci turu Dohan Beyda nekk nationalité mauritanienne tey ji nag euh, ki nga xamante ne moom mooy njiitum fédération njiitum confédération africaine de football plutôt di wuyu ci turu Motsepe jotoon na amal ab conférence de presse di wax ci li nga xamante ne CAN 2024 bi noonu la agendé moom nag jàpp na ne euh, cette CAN été regardé plus de 2 milliards de personnes ci noonu nag loolu di wane ne kan bi ni mu amee euh, am solo moom nag muy fàttali ci parcours yi nga xamante ne équipe bi def nañ ko waaye itam euh, jàppale gi nga xamante ne CAF mi ngi koy def jëmale ci fédération africaine de football yi koppar nag takk lool toll ci 250 000 dollars dollars plutôt pour rek euh, fédération africaine yi mën a suqali ko waaye itam ngir ñu mën a perfeere wu ci kan bi waaye itam bu ñu demee ci Coupe d'Afrique des Nations itam jàppale seen championnat national lu lu mooy loolu la ñuy wax itam ci beneen euh, actualité ñeel euh, entraîneur boobee di Hubert moomee nag nekkatul entraîneur Burkina faço Burkina Faso dañ koo dàq ndax dañoo jàppoon ne résultat yi nga xamante ne moom lañ ko moom lañ euh, waxante waxante woon kooku respecté wu ko ci noonu nag dañ koo dàq dàq itam staff bi nga xamante ne daal dinay ànd ak ñoom ci noonu nag seen prolon seen contrat seen contrat mujjuñ ko prolongé kooku nekkoon entraîneur bu Burkina Faso mi nga xamante ne dafa gaaw génn ci compétition boobee di Coupe d'Afrique des Nations Lions à présent wax ci image du jour loolee nag tënk ba léegi ci phase ci match yu am yi nga xamante ne amoon na ci demi-finale yi et comment la Côte d'Ivoire est vraiment un pays de l'oscilla de de de e. <laughs> mu nekk dëkk bi nga xamante ne dafay dalal bu baax a baax euh, gan yooyu photo, prenez la photo. La justice de Dieu. La jaajëf euh, as ci euh, image du jour boobee nag loolee nag di wane ne ni nga xamante ne la Côte d'Ivoire di wuyoo turam moo di CAN de l'hospitalité li nag moo gënoon fës ci xibaaru journal de la kan ma amoon mbégte bu baax a baax di leen ko présenté je vous donne rendez-vous euh, demain samedi ci yeneen xibaar loolee nag ñu daal di fàttali rek ci lay match troisième place di am war a dox ci diggante Afrique du Sud waaye itam ak RD Congo